wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain bismillahi arrahmani arrahim ya ayuha annasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba sadaqa allahu alazim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd nuyoo bu màgg nuyoo bu ànd ak worma bu ànd ak yar ak te di ko def nag ci turu sunu kilifa sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom mi nga xam ne moo fi teew ci ndigalal Serigne Moustapha Absa Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacké te ñuy ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool tamay ko wér kon ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Xaadim ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal di doomi sëriñ mu daaw balla yu góor ak yu jigéen ak sëti sëriñ mu daaw balla yi nga xam ne ñoom ñépp di daayira ay sëtam teew nañu fi ñi nekk Daaru Muxti ak ñi nekk Tuubaa yépp ànd itam ak magi taalibe yi ak ñi nga xam ne ñooy ay jëwriñ ci kër ga ñépp teew nañ lim nañu seeni tur jëruñu ci dellusiwaat kon ñoo ngi leen di nuyu ci turu mbooloo moomu nga xam ne ñoo fi ñëw ci bis bii nga xam ne dañ ko tuddee seen kilifa di sëriñ Moodu Awa Balla Mbakke ñuy jiital ci nuyoo bi nag kilifa yi fi teew yépp di ko tàmbalee di sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Moustapha Fadilu Mbàkke moom itam di ko nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ci teeru bu rafet bi nga xam ne moom la teelu teeru mbooloo mi ak kàddu yi rafet yi nga xam ne yëkkati na ko bi ñu dajeeg moom ci biir di nuyu ay rakkam yépp di ci tudd sëriñ Mouhamadul Bachir Mbacke moom mi nga xam ne sëtub sëriñ moo daaw bàll kon ñu di ko beral ak nuyoo bu ñu ko xasee tudd nag damay far tudd rek sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Moustapha Fadilu ak sëriñ Saliou mi nga xam ne dégg naa ñu tudd ko fi sëriñ Mokhtar ñëpp di doon sëriñ Moustapha Mbacke Fadilu ñu ngi leen di di leen siyaar di leen sant di leen ndokkeel ci seen bisu waajur bi di sant nag bu baax ci cëral gi ngeen si ci Modaw Balla ba tuddee ko bis bi loolu itam di lu am solo ndax dafay firndeel jokk ak bokk laay ji ma doon jàng léegi ci alxuraan suñ boroom daf cee wax ne na ngeen ragal yàlla waaye na ngeen toppatoo bu baax te fonk bu baax ak bokk yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne képp koo xam ne bëgg ngaa gudd fan bëgg yàlla yaatal sa wërsëg yàlla musal la ci deegu ñaaw na nga ragal yàlla te na nga jokk ak bokk mu dellu waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wax ne képp kuy dog ak bokk du dugg àjjana la yadxulul jannata xaatia mu mu ne amul benn bàkkaar boo xam ne nit ki dana ko def dañu war koo bu gaaw fii ci àddina dencal ko leneen bu gën kawe bàkkaar bu gën a màgg dog ak bokk dog ak bokk bàkkaar la boo xam ne la ci yàlla di fayee nit ki ci mbugal ci àddina la koy tàmbalee gis laa tey àllaaxira mu waxaat itam ne ki jokk ak bokk mooy ki nga xam ne day fekk ku ko faalewul mu faale ko waaye bu fekkente ne ki la faale rek ngay faale kila la toppatoo ci bokk yi moom ngay toppatoo nee na kooku jokkoo ak bokk da ngay fayantoo kon lii ngeen def lu am solo la ndax dundal ak bokk ñu dëgg la maam yi kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu seeni diggante doxal nañ ko ci anam ba gën a rafet daanañ demlante daanañ dikkalante waaye jamono xat na yitte yi bari na mbokk gi itam yaatu yaatuwaay boo xam ne ñépp xamante yombatul kon yu mel nii rek mooy mën a fàttaliwaat nit ñi dundalaat bokk gi ak xam ak xamante mën a amaat bu baax kon nag yéen sëti sëñ Mouhamadou Moustapha Fadilu ñoo ngi leen di sant bu baax ci seen xalaat bu rafet bii ngeen am di teg cant gi ci loxol sëriñ jiili mi nga xam ne mooy njiit njiitu daayira ak sëriñ Abdul Karim mi nga xam ne moom itam doomi sëriñ Bachiru Mbàkke bi ma waxoon léegi la kon def ngeen lu rafet def ngeen lu am solo xam naa ne kàddu yi lu mën a gudd ndax guddi na waaye tudde gi nga xam ne moom lañ ko tuddee sëñ mu daaw balla loolu lu yell la lu jaadu ndax diggante sëñ mu daaw ak ak sëñ Moustapha Fadilu mooy diggante sëñ mu daaw ak sëñ Fàllu te boobu diggante nekk na diggante boo xam ne li ñuy nekk nekk ay ndaw mën nañ cee wax lu bari ndax Euh, sëñ Mourou Balla doomam ji nga xam ne moom la ñuy wax Serigne Fallou vingt 1927 ci la ganee àddina sëñ Mourou Balla tudde ko cent vingt 1927 mooy at mi nga xam ne ci la sëñ bu mag bii làqu yaakaar naa ne sëñ Fallou Assadie moomu ñi ko mag ci turandoo yi sëñ Fallou yu sant Mbàkke bariwul kon diggante sëñ Mourou Awa Balla ak sëñ Fallou. suñ Fallou Assa Dieye moom firnde ju mat sëkk la ci la ca dolleeku mooy fépp fu suñ mu daaw bala ma sa nekk di dëkk yi ñuy lim ne sanc na ko fu ci bari sëriñ Fallou fekk na ko moo xam Daaru Rahman la moo xam yeneen dëkkam yi nga xam ne da koo sancoon di fa jàmm yàlla siñ Fallou daana yëkkati tànkam ñëw ba foofa fekk ko fa am na ci dëkk yoo xam ne sax sëriñ Fallou dafa sanc ca wetam muy fee ñuy wax yabal boo demee njaarim yabal ma nga fa Touba Mirina ak Saam yabal di ay di aw tund woo xam ne sëñ Moodu Awa Balla ak sëñ Fallu ñoo fa dend ay tool te loolu lépp day firndeel seenu xaritoo di firndeel seenu jaxasoo hmm. hmm. fàttaliku naa rek loo xam ne sama waajur sëñ Moustapha Absa moo ma ko nettali bis boo xam ne sëñ Modou Awa Balla la ko yónni woon ci sañ Fallou nee na nag booba suba teel la fa dem bi mu yeggee nee dafa fekk sëñ Fallou muy ndékkee cere cere ak ndox xam naa loolu sëti sëñ Fallou jël dars boobu am na solo sëñ bi nee na bi mu àggee ba nuyu ko daf ko jox bool bi ne ko xewliti daan ne ko mbaa danga ko def cere ak ndox lu lu am solo la lu baax a baax la te ko def muy xëy di ndekkee cere ndox loolu day wane ak jaxasoo ak duggante goo xam ne duggante gu biire la ci seen diggante kon diggante sëñ Moustapha Fallou bi mooy diggante sëñ Modou Abala ak sëñ Fall loolu moo waral turu wi ak jagleel bi ko jagleel bis bi suñ Moustapha Fadilou nag digganteem ak suñ Modou Awa Balla mooy digganteem ak njabootu suñ Modou Awa Balla ci ñun li ñu gis xaj na am na ci loo xam ne mag ñi ñoo ko xam waaye junj nañ ko léegi ñaari ci doom yi jigéen yu si Modou Awa Balla nekkoon nañ ci kër suñ Moustapha Fadilou ñett ci waa kër sëñ Modou yu jigéen nekk nañ ci kër si sëñ Modou Awa loolu yaakaar naa ne doy na sëkk ak jaxasoo doy na sëkk ak duggante boo xoolee fii ñu toog ñi tey muy kër sëñ Moustapha Fallou bi kër sëñ Modou Awa Balla ma nga ne ci wet yàlla boole leen ñu dëkk seeni quartier sësaloo dend loolu booleeg yàlla goo xam ne yàllaa ko def ñun ñi li ñuy doon doon ay ndaw suñu mësuwaa fàttali fàttaliku nañ ay yooni yoon mu ñëw daaru muxti ba ci màggal si mu daaw bàll sax daana ci ñëw fàttaliku naa itam téléphone sax daana ko téléphoné suñu Moustapha seq seqoon nañ ak xarit si euh, jaxasoo woon nañu lool suñu Moustapha ànd na ma moom ñëw fekk sëñ Moustapha Fadel mii ci kër sëñ ay yoon kon loolu ñun ñi ndaw sax mën nañ koo seere sunu baay bi ñu àndal muy sëñ Xaadim docteur fàttaliku naa bi ma njëkkee gis sëñ Moustapha fii ci xayra moom la moo moo moo andi loolu yépp kon tudde gi ñu ko tuddee lu yell la lu jaadu la te itam dana dekkalaat bokk gi dana dëgëralaat lu bari dana firndeelaat lu bari xam naa comme guddi na te kilifa yaa ngi toog ñoo ngi yemale foofu kaay bi tey sant bu baax a baax rek di gërëm di xam leen daal eh, suñu xol sedd na bëgg nañu mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teew yépp itam seenu xër ci bis bi ak jëf ji reyaay bi loolu rek moo ko moo ko waral kon nag li ñu fi def lépp yàlla ko yàlla nangu suñu boroom te dugal ko ci téere bi yëngu Serigne Modou Awa Balla ak Serigne Moustapha Fadil ñoom ñi nga xamee ni ñoom lañ doon fàttaliku tey jii te yàlla may ñu teew ko déwén yu déwén yu bari maa ngi jéglu ci wax ji lépp lu ci dëng rek ci man la waaye kilifa yi amoon nañ yéene mu doon wax wax ju jot doon wax ju mat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi leen ko wax bu bi ci seen ma wax ci mu ngi njëkk jotaay bi salaamaaleykum barakallahu kaddu baa ngi noonu kaddu baa ngi noonu sëriñ Aha moom sëriñ Fafal di ko dox sëriñ Aliou moom suñu gaw wala la. daay rek ay semence yi ñu nekk ñëpp dafa tënk ñu am solo yàlla yàlla na ko suñu yëngu yi. ñu dégg ñu sëriñ Abdoulaye Bousso moo la wax tuuti ci li ñuy màggal. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain bokk asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke kàddu yi nag kàddu yi cant la ak ngërëm jëm ci doomam yi nga xam ne ñoo taxawal bis bii tey te muy bis boo xam ne bis la bu am solo boo xam ne fàttaliku nañ ci seen maam Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadilu waaye fàttalikuwaale nañ seen maam Serigne Modaw Ball muy loo xam ne lu sori ci moom la sori ci njaboot gi lool nee na kaddu gi nga xam ne moom la war a ak nje ak waa kër sëñ mu daaw balla li ci ëpp waxoon na ko ci biir ak ñoom xanaa seereel ko mbooloo mi rek moo ci des waaye day wax ne bis bii tudde gi ñu ko tudde sëñ mu daaw balla dafa nekk loo xam ne dañoo delloo battu bi ca ndaala ndax diggante sëriñ Moodu ak sëñ mu daaw balla day dellu ci diggante Cheikhul Khadim ak maam Thierno Ibrahima Fati doonoon rek ju sës ci moom rek mu doyloo woon ko lool moom it mu doyoon lool sëriñ bi wóoru woon ko ci léppam dénkoon ko njaboot gi te njaboot googee mu ko dénkoon Cheikh Mouhamadul Fadil bokk ca te mu taxaw ca taxawaay bu rafet boo xam ne sëriñ Fallu moo taxaw fii seereel ko boppam te mbokk mi wax na ko léegi wax taxawaay bi nga xam ne moom la maam Cerno def ci ñoom te mooy jàngal ne sunu bàyyi Cerno daf noo jàngal ba ñu ne ar mu yar ñu ba ñu ne nër mu yee ñu ba ñu ne jar yaakaar naa àdduna jëpp ci noonu nit ki soo ko jàngalee ba mu ne ar yar ko ba mu ne nër yee ko ba mu ne jar yaakaar naa defar nga ko àdduna defar nga ko àllaaxira te bàyyee nga ko muy doon kuy man di defaree ba faw te mbokk mi wax na ko léegi bi mu koy defee bi mu defee ci ñoom melo yu sell yooyu te mooy jàng ba ne ar yaru ba ne nër yow ba ne jar dafa continuer motti li geneen kóllëre goo xam ne guy dolli loolu doxoon seen diggante lay doon te mooy sos geneen mbokk boo xam ne day dox seen diggante te mbokk mi wax na ko léegi mooy yëkkati ci njabootam jox ko muy soxna su Mbàkke muy waay juru soxna yi muy waay juru sëriñ Seex abi ba tey njabootu borom daaru nekk ci biir kër Cheikh Mouhamadul Fadil sëriñ Fallu it loolee mu seqoon ak maam Thierno te kóllëre gi tukkee woon ci way juróom wa Cheikhul Khadim mu continuer di ko dundal ci maam Thierno ba noppi koo gis di ko dundal ci njabootu maam Thierno ñu seqoon lu ne seen diggante eggoon fu ne dara mësu caa manqué dara mësu caa des ñoom ñaar ñëpp ñu sàmm ko sàmmin wu rafet. dundal ko dundalin bu rafet loola di royaat ba kóllëre ko bu dox diggante sëriñ mu daaw Balla ak Cheikh Mouhamadul Fadil moo indi kóllëre gi dox diggante sëriñ Moussa Fadil mii ak ba ñu set lu bari bokk yi wax nañ ko fii léegi jërut di ko baamuwaat moom it mu jaar fa way juram wa jaaroon ak Cheikh Mouhamadul Fadil sëriñ Fall yi sëñ Modou yi jaar fa waajuram wa jaaroon di sëriñ Fallu ak maam Thierno ak sëñ Modou Awa Balla moomu te mooy fexe ba njaboot bi jaxasoo ay sët meññiku doon sët sëñ Modou Awa Balla doon sët sëñ Moussa Fall kon loolu lu am solo la ku mel noonu nag suñ ko tànnee tey tudde ko bis bii ak jikko yu rafet yi nekkoon ci moom ak mat gi nekkoon ci moom. ak melo yu rafet yi nga xam ne bokk yi njëkk jàll léegi wax nañ ko ci moom day mel ne li sëñ Mbàkke waxoon rek ci biir thème bii ñu doon waxtaane day doon lu am solo dafa wax ne yar munta ñàkk roy téef kon bu ñu tuddee jëlee bis bi tudde ko sëñ Modou Awa Balla te sëñ Modou Awa di roy téef kon day delloo ndaw ñi ci ñu xoolaat mag ñu baax ñi nga xam ne yàlla jag na leneen ko te doon mag ñu mat sëkk fees dell seen place ñu xool nan la ñuy roye ci moom te jàpp naa ne melo yu am solo ji nga xam ne sëriñ Mbàkke wax na ko fii ci yar lépp bu ñu xoolee ci melaw sëñ mu daw ball dañ koy fekk ci biir bu ñu xoolee ci melaw sëñ Moussa Fadil mii moom bis bi loola dañ koy fekk ci biir mu jële ko ci way juróom yu baax yooyu kon nag sëriñ bi nee na loolu tax na xolam seet na guy yu xolam njaboot gi seet na guy yu waaye xolam gën naa set it ci ñëw rafet yi nga xam ne ñëw nañ ko tey ji wuy si woote bii sëriñ xaadim di way yu jiite ko ci ndigalul sëriñ Moustapha Absa mi nga xam ne moom it euh, sëriñ xaadim wax na léegi digganteem ak sëriñ Modou te muy loo xam ne ñu bari ci jataay bi xam nañ ci dara seen diggante ni mu rafete woon ak ni ñu daan doxe bokk gi ak ni ñu daan doxe kóllëre gi umpul kenn ko ko fekkee woon bu sëriñ xaadim àndee ak bokkam yii te bokkam yii mu àndal kenn ku ci ñëwoon rek mu doy waaye mu àndal ñépp li ko gën a neex nag mooy jëmmal gi ñu jëmmal bennoo gi nga xam ne njabootu maam Cerno Ibrahima Faati bennoo nañu ci délégation bi te mooy ni ñu ko limee léegi genn benn buntu kër bu maam Cerno desul ñoom ñëpp ànd nañ ci njaboot bi loolu sëriñ bi mi ngi koy rafetlu lool ndax loolu it day am lu muy jëmmal am lu muy wone day wone ne ay bokk dañoo war a bokk bennoo di ànd di yëkkatendoo di tegandoo lu ca yittee kenn di yittee ñëpp loolu nag sëriñ bi nee na ñu ngi koy rafetlu bu baax di ci sant di ci gërëm di e, sant sëriñ Xaadim ak kilifa yu baax yii nga xam ne ñoom la àndal ñoom ñëpp di leen yóbbante ak cantam ak ay ndokkeelam ak ay ziyaaram ci sëriñ Moustapha Absa waaye di leen ko yóbbante ci sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy xalifa borom dara moo bi ñuy ñaan suñu borom mu yàggal leen ci lool te may leen wér ba yéene ji ñu bëgg a liggéeyal borom daaru ñu def ko yéene ji nga xam ne moom la sëriñ Moussa yéene ci njaboot suñ mu daaw bàll itam lépp suñ borom sottal ko sëriñ bi daal wax na ne xolam set na yu bég na lool mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen yóbbante ay cantami ci ngërëm ci sëriñ bi di sant nag doomam yii ci jëf ju rafet yi nga xam ne jëfati nañ ko tey te mu doon luñ yàgg a yoo am solo yu rafet yi nga xam ne wone nañ ko fi lekk te mooy wane rek ne ñoom kat yoon wa seen maam bëggoon ñu aw ca ña nga cay xar seen tànku tubéy gis nañu ñu wane fi melo yu am solo def nañu kuréel kenn ci ñoom yëkkati na fi alquranul karim ñu def kuréel jàng xasiida sëriñ abdul karim wax fi dénkaane bu am solo ndaw nag su fekkee alxuraan jiitu na ci moom mu yaw yar ni sit ci xasiida yi Sëriñ Tuubaa te lépp di jàngale ak yare génne fi itam jàngale mu am solo mii ñu fi génne yooyu ndaw mag na am ci ñoom yaakaar kon sëriñ bi li muy def moom mi ngi am ci ñoom yaakaar te di leen ñaanal dara bañ leen a fakkatal ndax la Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke daan wax rek ku jóg jaar ci yoon wi te dara doogu la da nga kon nag ñoom yàlla bu leen dara rob yàlla nañu àgg ni aw yoon te àggale itam yéene yi nga xam ne moom la seen maam amoon ci ñoom ñu mel ko te jikko yu rafet yi nga xam ne ak kàddu yi nga xam ne sëriñ Abdou Karim génne na ko ci seen tur dalal na xelam seral na xolam seral na xol mbokk yi fi nekk yépp tax na it ñu gën a am ci ñoom yaakaar ne yoon wala seen maam bëggoon ñu jaarte ñi ngi koy bàyyi xel ndax bàyyi ko xel moo tax bi ñuy bind di génne ab déclaration bu ñu war ci bis bii ñu tënk ko ci ok kayit te melo woowu mooy bi nga xam ne moom la sëriñ bi nee na moom lay gis ci ñoom bi ne mu toggee ci jataayu sëriñ Moussa Fadil bi ba kon nag mi ngi leen di gën a soññ jikko yu rafet yooyu nga xam ne mooy jikkoy sang te nga tudd ko fi léegi ngeen gën cee góorgóorlu te gën cee yar njaboot bi nga xam ne ñoo leen gën a féete suuf te xam ne loolu mooy maye mooy maye ndam tey mooy maye ndam ëllëg sëriñ Mbàkke wax na léegi ci biir waxtaan ne euh, doom ju baax waajtaay la doom ju baax ndenkaan la waaye doom ju baax itam kan ku nekk mooy bëgg-bëggam te bu sañoon bu ëllëgee moom la fiy bàyyi te ñett ya yonent bi waxoon ni bu nit ki faatoo léppam day dox ba mu des ñett yooyu doom ju baax ju koy ñaanal ca la bokk te doom nag mooy sët ay sët zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu ñooñu yal na leen ci yàlla boole ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ci kàddu yi def ñëw bett ngeen xam ne lépp lu ci dëng ci ñun la ndax kàddu bi bett nañu euh, lépp lu ci jub mooy ni ko sëriñ bi bëggee ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa sëriñ Moustapha Fallou Diouf radiyallahu anhu